jërë ngeen jëf asalaamaaleykum waa mbokki lamb di nuyu ku nekk sa tur ak sant tey ñu am mbégte kontaante ah mbokki wasaare lamb mbokki Dakar midi ñu dalal ki nga xamante ne tey mooy Assane Assane Ro ñu gënoon ko xam nag mu nekkoon coach bi nga xamante ne moo nekkoon équipe Papa Kane donc xale yi fa nekk ñu fas yéene waxtaan nag moom tey li jëm ci wàllum lamb Assane ñu ngi lay nuyu. Ah, Abdou maa ngi lay fay maa fay ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu Sénégalais yëpp di nuyu sama boy yi ay Omar ay Ndiaye maay boy maay nuyu ñëpp parce que fii ñu defee place bi mooy seen yu baax lañ am ñu amuñ problème maa ngi nuyu ñëpp. Assane ñu ñëw euh, ci li nga xamante ne mooy ci côté làmb jamono ji gis nañ làmb jamono ji ñu toll ah. arène nationale grand combat yi mag ya fa yëpp mën ñu fexe ba boobu ak léegi victoire am ci depuis ci combat yi la ki nga xamante ne la dëgër booy ñaa ci combat yi am na fi yëpp ay combat yu mag cinq grand combat mag am na fa mën ñu fexe ba victoire am ci làmb yooyu loolu ban nga ciy def. non maanaam jàngat bi ma ci gis mooy yenn defoo dafa CNG la benn bi si mbëri la yenn mbëri dañuy def responsabilité. arbitre yi dañuy juum teguñu ko fi ñu ko war a teg quoi parce que avertissement yi dafa bari trop trop trop trop ñaari góor bu ñu leen fayee munin làmb day fu mu toll foo xam jom la ak fulla ak fayda waaye du ay xel mu neex te gars yi dañuy bëgg a fayoo ko million di ko liggéey ci xel mu neex loolu mënut a nekk non non mënu nekk mënu nekk làmb moom day am fu mu toll du problème mu ay xel technique jom mooy indi ak ngar mi parce que làmb affaire de buur la. waaye bu am na làmb fooy toog rek yow mbëri bu am na fooy soo ko bëggee teg ci kalkin ko ci kalkin nii rek lay mujjee ak avertissement yi dul jeex te mbëri ñoo xaw a bëgg lu yomb nag ñoo xaw bëgg lu yomb de bëgg na lu yomb trop waaye làmb ji moom pour man li ma ci gis moom il faut ñu defaraat ko mbëri il faut ñu changer seen pour promoteurs yi xool mbëri ni boole CNG bi xoolaat seen ba taxawaay boo problème ay international ko ndëppal ak a ndëppal ñoom ñoo ñoo ñoo la ñu war a ndëppal ñoo parce que léegi seen làmb dañ ko bëgg a teg wax sport du wax sport jëf la sport santul théorie pratique la tudd mooy jëf waaye bu fekkee wax kese kese kese man bu ma neexee si ma nekk mbër mën naa signature fecc bu ñëwee ma arrière jox ma ci avertissement ma ñibbi dem nooy cent du problème mu CNG de mbëri seen bopp dañuy am mbëri yomb yoo bëgg lu yomb te li ma leen li ma la mën a xamal mooy doole bu nekkul si yow si fit du yokk doole boo ko amee mbër bu entraîné ba ba entraîné ba am doole lekk ba suur day neex a ñaanal te day fit waaye mbër su ñëwee ba ci biir géew sant lam sant santiril ko day ragal te bu ragalee day sikki sàkk te gis nga góor ba amee doole buy dox si mbedd sax da da nga gis muy muy fippu moo xarum yara yam rek xar moo yafal six mois mu lekk beleeg bësi da gis mu commencé mbëkke parce que la muy yëg la bu la demee ba yëgatool la nga yëg na ñëw ba ci lamb day hésité hésité gu bari gi yëpp loolu kese la du leneen. ñu ñëw ne moo fi am barki démb mooy combat diggante Balla Gaye Bombardier combat boobu Assane ñu gis ki nga xamante ne mooy Balla la mu ci làmb jooju noonu ñu gis Balla Gaye tamit ak li nga xamante ne côté entourage bi nga xamante ne ñooy topp Balla Gaye gis nañ ci ku ci mel ñaa xarañ loo gis ku ci mel ne Ketchup ay ñoom Aziz Ndiaye te ñoom ñëpp ñu ànd ak ki nga xamante ne mooy Balla Gaye ñëw ci làmb jooju noonu tey ban jàngat ngay ci combat premièrement Balla Gaye amul kilifa ndax nan amul kilifa ñaaxarañ lu mu mënul Balla lu mu ko mën yokkal lan la ko mën a apporter ci làmb Ahmed Aïdara lan la mën yokkal Balla Gaye ci làmb lan la ko mën a apporter Aziz Ndiaye xaw ma Alain Ndiaye ñooñu ñooñu seen groupe Ndiaye Ndiaye yooyu leen rek lañ mën a yokkal Balla Gaye mën nañu wut ay gàllaaj mën nañu wut ay mystique waaye mënuñu ko yokkal leen ci làmb tey ñu ànd ak Balla fii Balla Gaye à part Baboy kan moo ci a taxaw ne la Balla Gaye làmb ji compliqué ñii ngay def ak ñii ak ñii nii. sañ-sañ lay wane ndax borom xaalis la waaye du xam-xam Aziz Ndiaye lan la Aziz Ndiaye daa xam droite bu jub xamul correction xamul bët xamul nooju xamul galgal xamul xàttar bi kon kon lan la ko mën a koo apporter foofu lu surtout sur le plan mystique ak ak million loolu rek la mën a apporter Balla Gaye plan technique. physique musculation contact coffre endurance Aziz njaay xamul loolu te nit nag bu fekkee ne tanewu la li olof naan garab bu la sutu du la may bu dee ci côté sport Aziz Ndiaye mënul mënul may ker Balla Gaye waaw bu dee côté million nag ak côté musique mën na ko apporter dara parce que fu yàlla mënta àgg xaalis mën na fa àgg loolu rek la ko Aziz Ndiaye mën a Balla Gaye nag il faut mu xaat boppam ci comme naan Balla Gaye boo Balla Gaye mi fi nekkoon ak ak mi ngi gis keroog lan la am na différence wala Balla Gaye fii bu doon bëtiri man la vidd na Balla gis nga Balla Gaye première bi muy bëree ak daam kanji jour boobu la ndongo la décédé Esat Amadou ah, Esat Amadou Baré grand combat bi laay gayndale woon ak dem si àll si MC Lida yàlla na ko yàlla xaraa jënd sama kanam la jour boobu laa njëkk a taxaw Balla Gaye bëree jàpp daam kanji duma ko dumay métti daan ko daam kanji tey seen senior moo ko indiwoon dem si yàlla si ak Baboy ñu sul ay tëré militaire may leen booy bi mën na doon roi des Ibrahima Mbaye bu faas na may wax moo làmb jour guddi googu ndongo loo gaañ stade Amadou Barry promoteur baa nga dëkkoon stade stade amitié ci miir bi loolu la yoroon waaye xam man dafa am réalité boo xam dañ ma ko jàngal ci sport man masse musculaire laa xam waa géej waa waaye yi ko doon yuuxoo topp ko yuuxu naan Balla Gaye Balla Gaye Balla Gaye ñoo rey Balla Gaye ñoo ko teg parce que dix jours cinquante kilo yàlla bindul fenn at fukki fan cinquante kilos nga bëre Yékini dix jours nga dem États-Unis cent cinquante kilos ah li bi l'asper l'asper boo ko jëndee juróomi dërëm ñu jaay la meetar ngay xëcc di bàyyi muy dellu ngay xëcc di bàyyi muy dellu ngay xëcc di bàyyi bu yàggee ni nga ci di dellu du Balla Gaye du problème mu gàllaaj du problème mu bëri baa ngi fa du problème mu yooyu xam nga lan mooy problème am muscle bi moo laase moo bàyyi diggante cinq ans yi cinq gis nga gémmin boo waxul dëgg rek day fet cinq ans ñu génn nii Balla li mu fere yaram yaramam mat na soixante millions fee mi dem Paris ne xam lu mu fay liggéey loolu mooy dégressif dégressif lañ koy defal comme yaram bu mbaq ñu conservé ko mu nekk mu nekk mu nekk mu nekk mu nekk glace bu glace bu bees te gis nga am na looy def ci yaram bis bu effet secondaire bi ñëwee la yàlla joxoon ak la nga moomoon lépp lay boree yëpp yàq bala Gaye cinq ans ngi nii benn victoire la muy Modou Lo la fi daal xoolal te même état bi Balla Gaye yi mu dem boo xoolee naq bi lang nga xool loxo yi triceps amul amul biceps amul épaule amul trapèze dóoboo daa maase kiwis da nga koy xool xam ni kii des na du physique du condition du dara ba pare Balla Balla Gaye li mu jàppee Bombardier li mu jàppoon Bombardier ci moom la nekk Bombardier il est âgé de quarante cinq ans presque masse musculaire la da ngay xool yaram bi lépp jàmm te Bombardier moom li mu war a bëri la bëre maa la daan yaa soxla damay taxaw xaar la Bombardier xanaa xamoon ne kafiyo ngooñ la bu jengee day këpp waaye bu taxawee rek ku dal ci koom wàcc lu leer laa lay wax ba pare Balla Gaye nooy bëreeg mu ponkal moo xam yow mënoo koo yëngal nga ne ko mbot la xanaa xanaa sa doom sax doo ko wax kaayo mbot la moom da ko téléphoné waaye mbot ma daa ñorut kaayu mbot la ku ci mbot cuune nga kaayu mbot la bu la xale bee nga naaw moo tax da koo xalab mu naaw si sa ndur dajee jàpp jël la action bi ci biir géew bi la commencé dem ci bitti avertissement boobu si sa ndur dajee jàpp léegi daal Balla Gaye bu bëggee baax fa mu liggéey de. ci comme nan comme nan ceer moo ko defee ci làmb dernier ceer moo ko defee ci làmb parce que gis ma ko gisee nii dynamique bi moom ma gisee booy ñaa sax bu ci duggee booy ñaa mën na ko daan. waaw parce que moom euh, boo xoolee euh, jamono ji passé ginnaaw ci waa kër euh, Aziz Ndiaye si boppam moom mu ngi doon wax ne kat Boy Niang balaa mu balak in foofu amaat yeneen i dam mais ci am kii lañ leen daane si ay avertissement lañ amee défaite te combat boobu noonu comme actuellement Boy Niang balak in mais kenn mënut koo bañ xam nga Boy Niang mbër muy dóoree gauche droite doo ko daan mbër muy sànni gauche droit doo ko daan te Balla gauche droite lay xeexee te boo ñaata lay appel droite reculer nga sànni croisé gauche sànni croisé droite mu aspiré da lay sàcc te Balla Gaye bu sànnee gauche day sànni droite démb sànni na benn croisé gauche sànni benn croisé droite boo mbër je waaf dëgg ko croisé fa la làmb ja jeexe te Balla Gaye ba pare Balla Gaye bëgg na xeex waaye boo ko tuusee mu nelaw boo ko tuusee ci làmb mâchoire bi boo ko làmbee lañ ko waxoon ci làmb bañ lañ ko conseillé ci kër gi da koy fàtte. lu leer laa lay wax saa boo ko duuree yàq làmbam bare dafa tax dafa am habitude habitude bu nekk ci moom mbër mu gëdd rek boo dawul rek day am problème parce que mbër dañ ko tàmmal ku mu gëdd nga daw. Balla Gaye mbër yi mu bëreel yëpp ku ci gëdd da ngaa daw. mais keroog li mu bëree loolu la waroon a bëri ak Bombardier wala. Bombardier combat bi ñeenti minutes. mais ba ma dafa téye boppam gis ni Balla Gaye moo attaqué def lu bari. Balla Gaye mbër boo koy songu doo ñëw tout droit ci ak sam da koy zigzag sa tànk pied gauche bi di def nii di def nii ba pare Balla Gaye di xeex daa waroon xeex ak moom gauche di pare di ko zigzag waaye mbër kenn du ko attaqué tout droit ci axe da lay ëmb bëri boobu man pour man xeex bu gaaw la waroon na xeex daw sàcc ko man bi mu taxawee rek. laa leen Balla Gaye mi parewul parce que mbër mu naan wax ñaari minutes laa may wala mu ne une minute trente arbitre souffle muy sikki sàkka kon lam daan yëg yëgatu ko Balla Gaye ba non non Balla man daal lu ma la mën a xamal mooy bu doon ataaya naan na lëwal naan na deuxième mu ngi ci troisième bi troisième bi daal mu ngi commencé xor mbet ah loolu laa gis. Balla Gaye mi ngi gis est mën na daan daan Boy Niang wala mën na daan Gris Bordeaux wala mën na daan Eumeu Sène Balla Gaye mi. maanaam li ma la mën a xamal daal mooy. Gris Bordeaux. Boy Niang. Eumeu Sène. xanaa ku ñàkk fayda ku gëmul sa bopp Balla Gaye mën na daan. Balla Gaye bu ku ci daan ci ñett ñooñu rek yaa gëmul sa bopp. parce que ñee ko gën a pare. xam nga oto buy dem tuuba ñu lay réparé di lay réparé waat oto bu oto bu wow bu bees pull buñ tegee ci autoroute péage bi. parce que oto bi ñu réparé bu njëkkee àgg Touba rek chauffeur ba la waaye du oto ba ak ah, kay noonu la demee nag instant bi ñoom booy ñaa ñoo gën a pare ñoo am machine ñoo gën a pare léegi li des ci làmb boobu mooy fulla ak fayda waaye ful ak fayda bu ñu amul bala bala nga dalay waay di lo parce que waga la bala ngay dalay napp ci géew boo ruuxee mu waaxul ñibbi waaye boo dëgalee sa bopp ñeme boo koy bu la boo dóoree mu pare ñemul mais combat bi gis nañ nga xamante ne ñu bari nañ Balla Gaye manqué nañ ci contact amu ci contact ba ci ba école am ne ba mu jëlee avance bi ak léegi jaarul sax li ne mooy seen ci école bi pour ñu mën a gis ki nga ne mooy Balla Gaye ñu mën a liggéey ak seen mbër est-ce que tamit lamb ji Balla Gaye amutoon fu mu ko a waxuma la contact sax waaye Balla Gaye dafay indiwul dara rien indiwu ko du physique bu baax du koofar bu baax du muscle bu baax ay daal indi ko fa yu bari moom sol na yére summi sangu siwo sangu sangu lamb du loolu lamb physique la musculation contact xeex ak calcul a technique man loolu laa jàng waaye sangoo sangoo sangoo sangoo nga jàpp mbër di commencé appat na juum nga. 100 pour ay ñoom la dëgër ah ñoom Alioune Seye ñëpp doon topp ci ginnaaw Balla gi mais ñoo ñëpp dafa mel ne xaw ma dañ ñëwuñu wala seen dafa dàq loolu wala dañu leen a écarté combat bi. dañoo gëmul 100 pour cent bi. 100 pour cent yi gars yi wax gëmuñu ko ci làmmiñ la yem 100 pour cent buñ ko waxee waxee waxee wuñ ko stade ba 100 pour cent mooy Balla Gaye am na combat mbëri poore génn ñu ñi ci benn ruq tey guy gi Alioune Seye 2 Les 2 ñeneen ak ñeneen Sa Thiès ñooñu ak groupe boobu noonu buñ dajaloo ak Balla Gaye ci benn ruq buñ contacté ak moom weer lu lum ñàkk mën na ko am waaye 100 pour cent boo am ci làmmiñ la yem ku ne sa ruq nga nekk naan 100 pour cent géejewaay du pour ku ne si intérêt personnel ngay dox dañuy rafetal nii rek à ah, 100 pour cent bi moom du 100 pour dem stade déedéet 100 pour mooy bu combat bi taxawee mbër nañ dem physique mbër nañ dem contact mbër nañ dem musculation 100 pour cent parcelle moo gën a dëgër jamono bi ñu toll nii bu ñoom waa parcelle moom ñoom laa gën a gis seen bos dëgër na parce que boo xoolee Modou Lo Papa Sow Franc Goro Sock Garga Junior ñooñu rek doy na làmb Balla Gaye nga ci fonne que li nga xamante ne tey mooy père Balla mi fi jógee yàlla ko yàlla yërëm ak baay ji ak yeneen est ce que loolu tamit manqué ko ci làmb ji si côté li mu doon bëree ci lu bari. non non loolu ci dara. Balla Gaye bëri na six combats wala sept combats yoo xam ne xam nit ñi xamuñu ne doomu Double Less la. man mën naa la compter six combats yoo xam ne Balla Gaye six victoire la tegle wala sept yoo xam ne Double Less taxawul ci géew bi. Double Less bi ko gaa yi xamee yàggul. Balla Gaye daam kañ da ngaa gis Double Less bala Gaye Sambalaw bi da gis Double Less bala Gaye Mbaye Diouf da gis Double Less kenn lañ gis jee gis Double Less Balla Gaye commencé fay ko cinquante millions soixante millions xam nga la mooy mbër la nga daan def daaw mu jik la moom kay defaat mbër la la la la may ndam 2010 sëriñ nga sëriñ la daan ñaanal ngay am ndam ba bala kenn xam ñoom ngay jàpp 2022 entraînement ya nga doon def 2010 2011 2006 ngay am ndam moom ngay defaat sa xarit la doon jàppale ba dara doonul dara ñoom ngay àndaat waaw gis nañ parce que ñi ne ñu bari ñu ko doon sotti gàllaaj bi yoon ñu bari dafa mel ne ba xoolee dafa am lu bari bari dafa desoon ci combat xam nga bëri butéel bëri siwo xam la ngay sangoo ko gën bari na siwo yu mbër bi sangoo ci biir làmb yi du siwoy gàllaaj te gaa yi xamuñu mbër mu mën làmb sëriñ bu mën làmb ak sëriñu Bayra Ndiaye sëriñu Bayra Ndiaye dafa am ak sëriñu làmb man Balla Gaye 2006 laa ko xam Modou Lo 2006 ñu ngi ñu dee ak man ci benn kër problème mu Balla Gaye ak Modou Lo du problème mu dara problème mu sëriñ la ñoom ñaar boobu 40 000 lañ leen di fay ku ne benn tubay nga am benn yére ba ku ne million waaye mbër moo nekk jikko boo xam ni mbër ñamu tàmbalee l'an 2000 du ànd ak ñoom fi lay mi 22. te dafa am doomu yoo xam bës la ñuy wut kon tey ñaaxarañ loo bës lay wut. Ahmed Aïdara bës lay wut ñaa lan la mën a lentil Balla Gaye lan la ko mën a wutal loolu bës ñaa. aywa buusee gars yi. buuse la buuse la nu bëy la yor day wax rek kooku farul fenn moo guy gi la woon. waaw lan moo fantasiro parce que nit bu fekke da ngaa bëgg a jël tànk bi teg ko Ndakaaru. jël tànk be teg ko Grand Yoff ba yàggee seytaane ngay doon nit da ngay nekk benn nit ñu xam ne ñu xam laa kii. guy gi seetaan naa ko bapat maa ko njëkk yóbbu gabaar mbapat ñu fay ko trente mille gabaar daan ko deux voies Liberté 6 xam naa guy gi nit ku gëm boppam la waaye nit bu fekkee danga ngaa bëgg a gauche suba droite ah gars yi ni lay daw man ay buuse yi gëmuma leen la ñuy wut nitu buzz la ñoom nitu rajo rajo télé la ñu ñoom daal dañuy wax ci rajo yi nii di coow leen topp nii déedéet du noonu nit da ngay waaye da ngay dañ lay dañ lay xam ak kenn yow mu yàgg moom ba yow mal boo ko bàyyee nga toog jàpp sa njàmbur. lan ngay wax Balla Gaye yi ci kanam bu ci bëgg bu koy gagné lan la war a defaraat. il faut reculer première sauté sote ah, kuy dem ba xamatoo fa dem da ngay dellu si ginnaaw pour mu mën a il faut mu defar cummi kaayam mu xoolaat mu xoolaat yaramam staff technique bi mu defaraat ko. defaraat encadrement bi ku nekk li nga xam ne yow moom mooy seen métier moom ko jàng nga yam foofu. na wuti man su doon Balla Gaye lu ma doon conseil en tant que Balla Gaye nañu jëli Mbaye Samb Mbaye Samb bi ñu formé ko Balla Gaye père Mbaye mu ngi foofu man Mbaye Samb def naa ak moom huit ans ci benn salle mbay Samb mbay Tine ak Jigo bi nga xam moo yor moo yor ëmm seen entraîneur ñëpp sama ñoom ñoom ñoo ma yar boobu ñeen dem si yàlla si yàlla na ko yala xare àjjana moo moo ñu doon formé man ne fekk fa grand yooyu noonu ak jimboor yi man yàgg naa ci biir gone yi biir grand yi man su jóob mii damaa taxaw ba tàyyi muy jàngale bari may xool 95 ba 2022 maa ngi ci sport nit xamu fi lu ma xamul waaye nag adduna sens la. mais booy dafa am lu leen réer ci Bombardier ngaaka lañ ko jàpp parce que Yékini waxoon na ko nee na euh, Balla Gaye wartuñ jël Bombardier euh, Bécaye ne ko lan moo tax mu ne dañ ko jàppee ngaaka te du ngaaka parce que bëri Balla Bombardier laaj na doole ju bari laaj na mystique bu bëree bare bëri te boo ñu ko teg nga. doole di ko daan commentaire naa ko benn fi benn ci site bu nekk ci Instagram bi ñu naan ko suñu làmb. Balla Gaye naan ko boo xeexee ma duma la soo bëree ma daan la ma bind ne Balla Gaye boo bëggee ko napp demal nga napp Mouhamed Sakho sa doom Bombardier kenn du ko napp du ay koy daan du ay doolee koy daan Bombardier nagu mbuur la xel moo koy daan. Bombardier combat yi ñu ko daan yëpp moo daan boppam parce que ponkal du jug bu jógee day woyof ay Bombardier bu naagoo rek daagu taxaw suuli tànkam da lay dóor ba da lay dóor ba rey la Balla la moom si combat bii nii li mu jàppee ak Bombardier Bombardier ku wayut la benn dof la benn ngaaka la xamut dara li ko Bombardier indil dafa bett Balla Gaye parce que ñëpp dañoo jàpp ne Bombardier da nga koy cuq ci combat bi rek mu jiree Bombardier ñëw suul na teg taxaw samp ay poto. Balla Gaye maama mu suul Balla Gaye day frère te combat bii nii combat MMA bu moo defar combat bi waaw parce que combat ba Bombardier tubaab bi MMA bi waaj da ko appel gauche Bombardier tëb sànni crochet gauche droite waaj def recul aspiré ko remise ko mu wàcc xam nga arrêt gauche kenn du ko dóor ku taxaw lu ñu wax arrêt mooy lan ci olof mooy taxawal kon ku ñëwul ku noo ko dóoree arrêt gauche mooy kuy mam di ñëw da ngay aspiré mbër mi da koy cokkaas bu ne bërit nga ne ko tàkk mu mu feree ne noonu la ko tubaab bi def da ko appel Bombardier mam sànni gauche sànni droite waa ji def recul aspiré ko dóor ku droite bàyyi ko mu wàcc. est-ce que Balla loolu. Balla Gaye la gis. Bombardier ñëw taxaw ñëw indi tekk bi tekk boobu nag moo yàq moo Balla Gaye boo xoolee booy yi fii waxee yëpp boobu Bombardier da leen dëpp muy Modou Lo Balla Gaye ñaari yoon. yii Bombardier amul leen luñ koy wax ci làmb lul teeyal di direekul jàppal doog xeex parce que 140 kilos la muscule loxo bi diis na te boo ko jàppee mënoo koo manipuler kook lu koy daan xel ak gaaw. Eumeu Sène da koo aspiré. da koo appel droite. mu jóg maam mu ko daa sànni crosse gauche sànni crosse droite ama nuur ci zone bi. muy làmb ama rocceeku def kat appi ngooñ ma tuuru muy kat appi jeex na. xam nga ngooñ la bu avancé rek wàcc. waaye Balla Gaye combat bi innocent la ci. maanaam commune dafa topp communication bi trop. jàpp na ne waa pataas bu tëb pataas bu nëb la. wax na wax wax Bombardier ne ne ko sakanal si énergie. man duma dawal góor. bu ma du ma réeral góor waaye Balla Gaye déglul après lay comprendre dafa am sens am na fu ko waaj a duuree cross droite mu jéng. waajee ko xool waaye bu ko doole woon mu mu këpp. géej way bu ñu bëggee champion il faut ñu wax dëgg Aziz Ndiaye mënul apporter bala gay leen ci làmb lu xaalis ak mystique. Aziz Ndiaye lan la mën a conseiller Balla gay ci làmb loolu samay million laa yor wuti sëriñ Balla Gaye combat bi waruñu am ñaari minutes bu bëggoon am ndam ba pare liggéeyul liggéeyul doole ju daan du daan lu daan Bombardier man gis naa mbër sumeeku physiquement ma xool li commencé mu lay ba thérapeute bi du abdominaux du pectoraux du bara du triceps du dos dara daa ñëw rek mel ni benn mbuusu ndox kon millions yi ñu si yóbbu ko France fee nee xaw ma nu mu tudd nu dëkk ba tudd. la. géej géej weeg yi amul lu ak di din dinu tiwaan pël yaram bu amee salté dañ koy dañ koy raxas te man gëm naa ne Balla Gaye mii làmbam dootul neex de seen gestion yi mu bëgg a jël si làmb yi nga xam ne dañuy téye seen bopp parce que nag boo xoolee nag Balla Gaye nag bëre na bëre bi parce que mais Bombardier nag attaque amul benn attaque bu ñu def dafa téye boppam rek ci combat bi. déedéet combat bi du problème décision Bombardier dafa téye boppam c'est normal làmb dañ koy man dañ laa fay fay ma Bombardier moo daan Balla Gaye Balla Gaye moo bëgg revanche ñëpp xam nañu ne Bombardier mii bu yëngoo mooy daan boppam Bombardier daa war a taxaw yaa eh, xale Bombardier yaa communique ne bu xeexee di nga ko duma su bëree di ko daan demal bëre duma ko daan duma ko daan ko waaye yëngal loo mënta lu yëngal loo attunu day daal day jeexal doole te Bombardier neexul yëngal yàlla moo bind nit ñi te yemuñu xam nga tey sport ni xar mel xari yi ci dëkk bi noonu la nit ñi mel mbër di jàmm xam ne ay pël-pël lañu ñii ay talaa biir ñii ay laadum ñii ay baali baali parce que doole mu ngi ci yàq yi waa kër Double Less yàlla bind leen ñu nekk ay mbër yoo xam dañoo war am biir am taat am lex déedéet Balla Gaye dafa yàkkamti àdduna dafa lekk li mu war a lekk ñetti fan fàttali na lundi dimanche ba bi mu commencé dem États-Unis di ngaddee la commencé dugal boobam ci kàmb parce que boobu Sénégal ñoom bu ñu gis luy dem ñu kar ko déedéet da lay bàyyi ngay tëjëx tëjëx yi rek parce que comme que yaa am victoire rek duñ gis a defu. bu defet commencé ñëw na ku di wax waaye man toogoon naa géej yooyu may leen seen mbër mii jamono gi ñëw bu deewut dana fajoo ay millions parce que fi ma ko teg cinquante kilos gis nga Bombardier ji ki moo ko mag. téeméer yoon sax. léegi ji ak muscle waa ji ban moo gën a baax. waaye mission a baax bi dañuy dañuy liggéey physique di lakk seen gerees mbëru Sénégal yëpp boo leen boo leen def leen benn catalogue ñëpp a nuroo yaram mbëru Sénégal yëpp laa wax Tyson moo ci gën a yaram bi muy bëree ba ni mu bàyyee saa bu sumi ko da ngay xam ni kii dafa bëgg boppam sport tamit dafa man damaa gëm sport masse man daal li ma gëm mooy masse musculaire waaw jërëjëf ku mel ni Boy Niang ak Sa ak Modou Lo ñoo fi tane instant bii nii parce que ñoo ay ay ay ay athlètes la ñëw. mais Ama Baldé moom match bi mu yor est-ce que Ama mu poids bi mu yor ni man arrangé wu ma hmm. parce que gis nga 1 mètre 75. su duyee 135 kilos. bu combat am rombee ñeenti mi day dëpp. parce que xol ba un mètre quatre-vingt-dix mën na am cent quarante kilo lay dem yoonam parce que ku nekk cavillon cavillon mënut a am pneu R4 R4 mënut a am pneu bu ne fa mu war a dugg dañ ko fa dugal rek buñ bëggee jàmmaam tappale mayewul dara ci làmb kon ñaari hmm. hmm. ñu si woon tey tey tey kon da ngay jàpp non combat boobu amul lenn lu ci Modou Lo di perdre wala lu ciy ñàkk maa ngi doon wax kan moo ñemee wax ni Ama moo ëpp doole Modou Lo ñaari yoon kan moo ñemee wax moo ko ëpp kan moo ñemee wax moo gën a waga kan moo ñemee wax moo ko gën a xor ci ay loxo kon jox ko combat bi Ama moo war def lu muy def na gaaw te assuré bu ko Modou contrer làmb ji naa yàqu Ama ko combat bu wurtu juum foofu. parce que de roi des arènes nee nga yaa ma doole dama lay jox combat bi léegi say faay man ci laay bëre te Modou ci ay faay lay bëre Modou du song kenn ci ay tànk de day taxaw ak gardam di la xool boo def mu remplir la moo ko monsieur nu mu ko def bu passé ama pied droite la jiital Modou jiital pied gauche ama sànni laaw gauche Modou esquive kor ko dóor koy pirkir bàyyi mu dëpp kon faay ama seen la sukkandiku dóor ko ama pied droite lay teg crochet droite bi muy njëkk a sànni muy bi làmb ji moo koy tëj xam nga nag luy am yàlla moo ko xam. <laughs> waxal leneen. maa maa ngi nuyu sama booy yëpp maa ngi nuyu Ndiaye nuyu sama fils bii nuyu sama gars yi nuyu Omar ak Sora ñoom ak Cheikh Ndiaye sama copain maa ngi gërëm ñëpp mbayen mbayen Couture Sora borom daara ji mu ñëw nga ñëw fii sa gars nga indi gel bi Sora mu ñawal ko baas nga ñëw fii booy ñëwal àndangu ah, yàlla yàlla def jàmm maa ngi jégalu askanu Sénégal gépp bu fekkee damaa juum noonu dama ñëpp baal àq wax moo xaw a doy war rek kontaan naa ci yéen yàlla na yàlla defal jàmm jërë ngeen jëf waaw.